rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain axawaatil azizat assalaamu aleykunna wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi ginnaaw bi ñu santee buur bi tabaraka wa taala julli ci suñu yonent muhammad alayhi salaatu wasalaam ñu di leen nuyu nuyu islaam di leen wax assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ginnaaw loolu mbokk yi ñu fas yéene dugg ak yéen ci thème bi nga xamante ne bi waajal nañ leen ko tey jii incha allah mu muy thème boo xam ne dafay wax ci jigéenu jullit mu nekk thème bi nekk jigéenu jullit ak responsabilitéem ay responsabilitéem ci jamono yi ñu toll mbokk yi ñun ñëpp ñu bokk xam ne ki nga xamante ne bi moom mooy jigéen moom mooy genn wàllu société bi kon comme niñ koy faralee di dégg saa su ne te jigéen moom mooy ndey waaye mooy soxna mooy doom mooy sœur te jigéen moom mooy yarkat mooy jàngalekat moom mooy produire ay góor waaye mooy tàggat jàmbaar yi mooy jàngal jigéen ñi waaye mooy former ñi nga xamante ne bii ñooy njiit yi ak boroom xam-xam yi ak ñi nga xamante ne bii dañuy woote ci yoonu yàlla te ñun ñépp umplewun ne jigéen jooju buur bi tabaaraka wa taala mi ngi ko bind ci ki nga xamante ne bi moom mooy aadam alayhi salaam alquran di ko firndeel di ko dëgëral ci suratu nisa fii buur bi tabaaraka wa taala di waxee ni yaa ayuha nnaasu ttaquu rabbakum alladi xalaqakum min nafsin waaxida wa xalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا برب تبارك وتعالى وقتي آية بي من أين دوم آدم يي ragal leen seen borom bi nga xam ne moo leen bind ci benn bakkan muy aadam alayhi salaam mu jël ci bakkan boobu bind ci ki nga xamante ne bii mooy soxnaam muy suñu maam Hawa alayha salaam waaye nee na ci ñoom ñaar ñooñu mu génnee ci ñoom ñaar ay góor ñu baree baree bari ak ay jigéen ñu baree baree bari. kon loolu tax ne mbokk yi boroom xam-xam yi mbirum jigéen ci lislaam yi teel leen lool waaye tamit ñuy wax ci mbirum jigéen. te lépp luñ ciy wax rek ñu ngi koy sukkandikoo ci maanaam point yi nga xamante ne bii alquran moom moo ko saxal ci mbirum jigéen ak itam atte yi nga xamante ne bii sharia daf ko tëral mu nekk ay atte yoo xamante ne bii dafa concerné ki nga xamante ne bii moom mooy jigéen moo xam jigéen ji nga xam ne yaay la moo xam jigéen ji nga xam ne sœur la moo xam jigéen ji nga xam ne soxna la moo xam jigéen ji nga xam ne doom la tey jigéen ñi ñëpp boo xoolee alquran wax na ci seeni mbir lu baree bari jigéen ñi ñëpp tey boo xoolee sharia indi na ci seeni mbir lu baree bari boroom xam-xam yi di ko wax ak di ci bind saa su ne ànd ak loolu yépp nag ci jigéen ñi ñëpp lu ci lislaam wax ak lu ci sharia tëral yépp teewul ba tey alquran ñëw na leeral li nga xamante ne bii moom mooy li leen war muy seeni devoir waaye tamit leeral na li nga xamante ne bii moom mooy seen yelleef muy seeni droit waaye tey suñu xoolee ci suñu jamono yi ñu toll ak lu ko weesu tuuti ci ginnaaw dañuy gis ne nit ñi bari nañ torop walla waxkat yi bari nañ torop lu ñu wax ci jigéen bindkat yi bari nañ torop lu ñu bind ci jigéen waaye nag dafa wuuteeg li nga xamante ne bii loolu la alquran wax ci jigéen dafa wuuteeg li nga xamante ne bii loolu la lislaam wax ci jigéen te bokk na ci mbir yi gën a am solo yi ñuy wax ci mbirum jigéen muy pas-pasam ak ay principe am ba loolu tax na ba wax nañ ci ay wax ba bind ci bind ci ay bind ba mujj gi ñu ciy dégg ak di ci gis ay lay yoo xamante ne bii wala ay woote yoo xamante ne bii ay woote yu leer naññ la li muy woote mooy lan mooy na jigéen summeeku ba set wicc ci santaane yi nga xamante ne bii moom la ko buur bi tabaraka wa taala sant na jigéen sori njàngalem diineem ji nga xamante ne bii moo di lislaam ba tax na yàlla nattu ay jigéen ñu baree baree bari ñu déggal noonu yooyu daldi gàntal li nga xamante ne bii moom la buur bi tabaraka wa taala teg ci seenu loos moo xam lu ñu war a def la moo xam sax yenn saa yi loo xamante ne bii ñoom lu ñu moom la lu leen lislaam may waaye bañ gi ñu bañ seen ndigalu boroom dëddu gi ñu dëddu lislaam ak fi leen lislaam teg ñoom jigéen ñooñu tax na ñu boole lépp loo xamante ne bii duñu xool sax amaana ba xam lii lu leen arrangé la wala lu leen arrangé wul la waaye comme lislaam moom moo ko yëkkati mu jib kaw rek jigéen ñi daal di koy wan ginnaaw wala jigéen ñi nga xam ne buur bi tabaaraka taala nattu na leen ñu daal di wan loolu ginnaaw waaw loolu ñu wan ginnaaw nag dañ koy layal lay bi mooy lan liberté lay bi mooy lan civilisation lay bi mooy lan set ci lépp loo xamante ne bii mooy ak deltu ginnaaw dundu mag ñu njëkk ña aada yeeg cosaan yi nga xamante ne bii kenn xamul fan la jóge kenn xamul fu mu soqi ko daf ñoo xañ suñu àq daf ñoo bëgg a xañ ñu dund num ñu neexee lépp ngir que ne noon bi jekku nañu ñun ñi nga xamante ne bii ñun ñooy jigéenu lislaam yi te sikk nekkul ci ne mbirum jigéen fi mu nekk nii doy na waar doy waar goo xamante ne bii tey boroom xam-xam yépp rawatina boroom xam-xam yi nga xamante ne bii dañuy wax ci lislaam ñu jàngataat ko bu baax a baax a baax xoolaat ko bu baax a baax a baax ñu leeral li nga xamante ne bii moom mooy sababu jigéen ñi sori bi ñu sori ci seen diine te sabab bi du lenn lu dul noon bi jekku na leen noon bi lëndëmal na seen xel gëmloo leen ne lislaam bi kat daf leen a bëgg a xañ seen dund gu neex lislaam bi daf leen a bëgg a xañ seeni àq lislaam bi dafa bañ ngeen participer ci li nga xamante ne bii moom mooy dund loolu moom mooy sabab bi nga xamante ne bii moo ëpp ci lu tax tey jigéen ñi wan ginnaaw li nga xamante ne bii mooy lislaam kon war na boroom xam-xam yi yiy wax ci lislaam kon delloosiwaat mbirum jigéen waxaat ci bu baax leeral sabab bi tax ñu dëddu seen responsabilité yi leen lislaam joxoon sabab bi tax ñu wan ginnaaw àttey buur bi tabaaraka wa taala waaye itim ñu wan doomu aadama yi gannaaw ba dëdd googu amee gannaaw ga ba gàttal ñu googu amee ci jigéen ñi jeexital yi nga xamante ne bi bàyyi na ko ci société jullit ñi ndax tey ku ne umpulewul kenn umpulewul ci ñun ne tey bépp réewum jullit mi ngi nekk ci maanaam ñu ngi nekk ci ay jikko yu doy waar yoo xamante ne bii suñu doom yee ngi koy dund yoo xamante ne bii suñu borom kër yi yoo xamante ne bii jigéen ñi ci seen jëmmi bopp ñu ngi koy dund mu nekk ay jikko yoo xamante ne bii kenn xamul fan la jóge jikko yoo xamante ne bii lislaam daf ko daf ci set wicc lislaam dafa santaane nañ ko sori lislaam dafa santaane jikko yooyu nañ ko woon ginnaaw tey loolu nekk ay jeexital yoo xamante ne bii li ko waral mooy jigéen ñi démissionné gi ñu démissionné ci waree fi nga xamante ne bii moom la leen lislaam santoon responsabilité yi nga xamante ne bii moom la leen alquran joxoon ne leen lii seen responsabilité la yéen a ko war a gàddu waaye nag wàcc googu ñu ko wàcc tax na mu def jeexital bu mag a mag a mag ci suñu société ñun jullit ñi kon loolu jaadu na kon tey boroom xam-xam yi leeralaat ko bu baax amaana yàlla def ci barke ba lenn ci jigéen ñi budul ñépp tamit daa di dellusiwaat ci li nga xamante ne bii moom mooy njubug lislaam waaye tamit du ñu yem ci leeral sabab yi ak jeexital yi waaye tamit ñu leeral atte yi nga xamante ne bii moom mooy atte buur bi tabaaraka wa taala ci mbir yooyu maanaam atte yi atte buur bi yi buur bi tabaaraka wa taala atte ci mbirum jigéen moo xam jigéen ju mu mën di doon ci jigéen yi nga xam ne moom la ñu waxoon sànq ne jigéen ñi ñëpp alquran cité ne leen muy yaay ji muy sœur bi muy soxna si muy doom ji ñu leeral kon ñoom ñëpp ku ci nekk li nga xamante ne bii loolu la buur bi tabaaraka wa taala gàll ci saw loos ci ay responsabilité waaye tamit ñu leeralal jigéen ñooñu xam xamal leen ne lislaam kat nekkul ne daf leen a jox ay responsabilité donc yem ci nekkul ne daf leen a jox ay wareef kese yem ci waaye tamit lislaam utal na leen ay yelleef yoo xamante ne bii yéen a ko moom yu ngeen bokkut ak kenn ngeen bañ cee ñee bépp benn jigéen boo xamante ne bii dafa bokk ci beneen diine ngeen bañ koo ñeel ci loolu ndax amaana kon tey jigéen ñi bu ñu xamee loolu dinañ wëlbatikuwaat ah fekk si wala delsiwaat ci li nga xamante ne bi moom mooy àttee buur bi tabaaraka wa taala delsiwaat ci li nga xamante ne bi moom mooy njubug buur bi tabaaraka wa taala delsiwaat ci li nga xamante ne bi moom mooy alquraanul karim waaye tamit boroom xam-xam yi war nañoo gën a leeralal ñi nga xamante ne bi ñoom ñooy jigéen ñi li nga xamante ne bi moom la noonu lislaam yi bëgg surtout ci li nga xamante ne bi moom mooy société islamique bi ndax ñun ñëpp umpale wuñ ñu ne noon yi fu ñu toll dañuy xeex lislaam fu ñu toll dañuy xeex lislaam depuis buur bi tabaaraka wa taala yónnee yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba suñu yoonu yàlla tey façon xeex bu ne xeex nañ ko lislaam façon xeex bu ne xeex nañ ko lislaam ngir bëgg daanee lislaam waaye nag li tax antuwul mooy li buur bi tabaaraka wa taala wax ne wa yaaba allahu illa an yutimma nuura yàlla moom mooy lànk rek ne dëggam gi njubam gi leeram gi day jolli rek jëm kaw waaye du deltu ginnaaw mukk lii moom moo leen teree avancé lii moom moo leen teree am ndam ci seen xare boobu waaye du suñu njàmbaarte ñun jullit ñi surtout ñun jullitu jamono yi te noon yi bi ñu demee xeex lislaam xeex lislaam ba xam ne jullit ñi bu dee xeex ak ngàndaay kese kaay dee moo leen gënal téeméeri junni yoon lu mu mën di doon ci àdduna ndax xam nañ ne suñu deewee directement aljana ci seen jihaad yooyu moo tax ñu ne léegi kon nañ leen changer système nañ leen xeex ak ñoom beneen façon wu xeex façon wu xeex boobu moom mooy lan nañ leen fexe ba ñu nekk ay jullit yoo xamante ne bii ci seen tur kese ngay xamee ne kii jullit lañ ndax di nga dégg buñ koy woo ñu ne ko Muhammad wala ñu ne ko Abdullah wala ñu ne ko Ibrahim bu dee jigéen la nga dégg ñu ne ko Fatima wala Zeynab wala Khadija ñu nekk kon ay jullit yoo xamante ne bii ci seen tur kese lañuy nekkee ay jullit waaye seeni jëfin du doon ay jëfi jullit. waa loolu nag tey suñu ko bëggee am nan lañuy def ñu ne nañ leen yàq seeni jigéen ndax jigéen ñi. bokk na ñi leen may doole ñoom jullit ñi jigéen ñi ñoo leen di defar ci biir kër yi jigéen ñi ñoo leen di encourager ci diine ji jigéen ñi ñoo leen di dimbali ci lépp loo xamante ne bii daf leen di jegañal ci seen boroom jigéen ñi ñoo leen di yar ci diine yar bu dëgër boo xamante ne bii ëllëg si biir lépp luñ mën di gis tamit duñu ko jëndee ci seen diine kon jigéen jooju nañ fexe ba génnee ko ci biir këram nañu fexe ba responsabilité yooyu alquran sant ko lislaam sant ko ko ne ko na ko taxawee ci biir këram ne ko na ko taxawee ci société bi nañ fexe ba responsabilité yooyu yëpp mu teggi ko teg fële bu ko defee ñu daal di am ñun li ñu bëgg système boobu lañ jël ci jamono yooyu ci la commencé depuis boobu ngay commencé dégg ay liberté de la femme ay parité ay émancipation lu nekk nga di ko dégg ci ay woote wu façon yi woote yu bëree bëree bëri bëri bëri yoo xamante ne bii wundul dara lu dul jigéenu jullit na gàll fële lislaam responsabilité yi mu ko joxoon na dëddu alquran na wan ginnaaw ki nga xamante ne bii moom mooy boroomam bi ko fekkoon muy dund ci ay jafe-jafe yu méttee méttee métti mu ñëw génnee ko ci loolu ci keppaaru lislaam teg ko ci dund bu neex teg ko ci ay conditions yoo xamante ne bii bari na ay mboroomi jigéenam yu ko amul ñu daal di fexe tàqalikook mbir yooyu yépp ne ko na génn ci mbedd mi na wuññi ay awraam na def jëfinu góor yi góor yi daan def nay nay nay maanaam nay nay nay buux buuxantee góor ñi ci seeni barab seeni place bu mu tal boroom këram bu mu tal njabootam bu mu tal kenn ku dul boppam bu mu tal lenn lu dul ay caaxaan ak utum alal tey mën naa ne daanikem réussir nañ ci bu baax a baax a baax ci mbir moomu moo tax kon boroom xam-xam yi lii nii war nañ cee gën a yaatal bu baax a baax a baax a baax gën cee wax ak ñi nga xamante ne bii ñoom ñooy jigéenu jullit ñi ñoo xam ne tey lii la noon bi bëggoon ci moom lii la noon bi bëggoon ci société islamique bi ba tax mu fexe ba xëcc ko moom jigéen daal di koy def mu nekk ngànnaay bi nga xamante ne bii moom lay xeexee li nga xamante ne bii moom mooy diine lislaam kon ti li yu mel ni mbokk yi jot na boroom xam-xam yi leeral ko ñi nga xamante ne bi ñoom ñooy jigéenu julli ñi amaana buur bi tabaarak wa taala dimbali leen ba ñu delsiwaat ci njubam gi kon loolu moom moo taxoon tey jii ñu ne ci bi ci kàttanu yàlla dinañ waxtaan ak yéen ci tënk ci mbirum jigéenu jullit ak ay responsabilitéem ñu di ci leeral incha allah xëy na bu ci lépp xajul tayit bu beneen yoonee ñu jël yeneen gen yeneen yeneen façon yi responsabilité yi nga xamante ne bi am na ko moo xam ci côté xam-xam la moo xam ci côté social la moo xam ci côté yar la ba ci côté daawa sax lu ci nekk jigéenu jullit am na ci ay responsabilité am na ci taxawaay bu ama am solo boo xamante ne bi jot na ci moom mu xam ko jot na ci moom mu taxawee ko ngir yëkkatiwaat li nga xamante ne bi moom mooy diineem kon ñuy wax ni rekk jigéen ji nga xam ne moom moo teg tànkam ci yoonu sàkku xam-xam jigéen ji nga xam ne moom mooy yaay bi nga xamante ne bi moom mooy yar doom yi waaye tamit moom mooy produire góor ñi ñi wax ak jigéen ji nga xamante ne bii moom mooy soxna si nga xamante ne bii dafay war a taxaw ci wetu boroom këram jàppale ko encourager ko ci yoon bi nga xamante ne bii moom mooy yoonu dëgg moom mooy yoonu lislaam kon jigéen ji nga xamante ne bii moom moo war a nekk jigéen ji nga xam ne dafay woote ci lislaam comme ni ko saxaabiyaa di daan defee démb di woo ay moroomi jigéenam ci lislaam di woo ay doomam ci lislaam di woo ay dëkkandooram ak am di jàmbam ci lislaam jigéen ji nga xamante ne bii moom moo jël boppam teg ko ci yoon bi gën a màgg ci yoon yi nga xamante ne bii dañuy jëmale doomu aadama yi ci aljanna ak ngërma ngërmandeel buur bi tabaaraka wa taala yow jigéen ji nga xamante ne bii tey yow yaa yor melokaan yi mun naa wax ne tey suñu waxtaan wii ñuy waxtaan yow la ñeel ndax mën na am buur bi tabaaraka wa taala def ci barke ba mu leeral sa yoon dindi lépp loo xamante ne bii lu lay gàllankoor la ci sa yoon woowu waaye tamit nekk ay kàddu yoo xamante ne bii ci kàttanu buur bi tabaaraka wa taala dina la dimbali ci sa yoon wi nga xamante ne bii moom ngay jaar ngir yar ngir sàkku xam-xam waaye ngir woo ñi nga xamante ne bii ñoom ñooy say mbokk ci li nga xamante ne bii mooy njubug buur bi tabaaraka wa taala kon xam naa ne incha allah dañuy yamandi fii tey ba ëllëg ak jàmm incha allah mu nekkoon daanikaam laytaay boo xamante ne bii dañ koo defoon rek ngir comme ni ma ko waxee waxtaan yi nga xam ne incha allah fas yéene nañ koo continuer ak yéen muy jigéenu jullit ak ay responsabilités ci jamono yi ñu toll. beneen yoonee incha allah ñu jël benn tomb ci biir waxtaan boobu muy lan moo tax ñu war a waxtaanee ci jigéenu jullit ak ay responsabilité am incha allah ma di leen delloo kàddu gi bi iznillah di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. amin amin